Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le ministre de l'Éducation, les membres du gouvernement, chers collègues, maa Monsieur le ministre je vous ce budget bi éducation bi dama euh, euh, été voilà amuñu lycée commune bi nu mu toll yëpp benn lycée amu fa soo jógee di dem euh, élèves yi suñu amee BFM e dañ leen di orienter si yeneen lycée comme par exemple euh, LPA bu parcelle wala géejawaay te gis nañu yooyu xaw naa sori élèves yi dañuy am jafe-jafe pour dem jàngi parfois seen parents yi du am paas boo xamante ne dañuy mën a di leen màttali toute la semaine ñuy dem jàngi su ko defee yenn élèves yi du mën a dem continuer cours yëpp donc dañoo bëggoon daal au niveau de Cameroun. ngeen ériger ñu pour ngeen construire ñu foofu ben ben lycée te xamna ni cambare mérito nañ ko so gisé ko notable yi nek foofu xamna so leen waxtané moom di ngeen mëna déggo ci si ki ba ngeen am bañu am foofu ben lycée parce que si commune yépp gis nañ am nañ am nañ commune yo xamanté am nañ ben ba mais cambare amu ci dara lool muy ben ñaareel bi moy monsieur le ministre li na si sous euh, le magistère de Serigne Mbaye Thiam ancien ministre bu mu nekké ministre de l'éducation nationale amona ay école yo xamante dañ leen tëjoon maanaam les écoles Yabou Salim te moom moo ko moo période boobu Serigne Mbaye Thiam Serigne Mbaye Thiam moo nekkoon ministre de l' éducation nationale. amoon na balaa ñu ko doon tëj amoon ay inscription yoo xamante ne jëloon nañ ko ci parents d'élèves yi eh, xam nga parents d'élèves yi école les les Yabou Salim presque ay euh, doomu gouvernement bi ak ñoo xamante ne seen loxo jotoon na seen ginnaaw ñoo fa doon jàngee donc su ñu ñëwoon di inscrire seen doom dañuy fay lépp année ñuy fay fayaale cantine bi aussi lépp lañ doon fay. mais bu ñu demee ba si digg année avant école yi tijji xamoon nañu école yi dañ leen di tëj mais dañu jékki-jékki si biir bu ñu nee ouverture école automatiquement ñu ne école yi tëj nañ leen donc parents yi amoon na ñu bëri ñu doon réclamer pour ñu rembourser leen ñenn ñi les élèves amoon na sa internat yu fa nekkoon ñoo jóge si meilleurs élèves yi ñu indi leen foofu élèves yooyu dañoo dérouté kenn xamul nan la def ak seen parents yi donc ñu bëri ñoo doon réclamer seen remboursement ma lay laajte ndax eh, am na yoo xamante ne ban mesure ngeen jël pour rembourser parents parce que am na ñu ñu rembourser am na ñoo xamante des na ba léegi donc ngeen taxawu leen. beneen bi monsieur le ministre mooy wàllum hygiène bi ci école publique école publique gis nañ la plupart du temps dañu am ñu bëri wax nañ ko fii côté toilette muy si biir cours yi fépp dafa am problème d'hygiène donc ñu bëggoon ngeen jël ay mesures yoo xamante ne strict ñoo jël ay équipe de nettoiement yu adéquat ñoo xamante ñoo toppatoo wàllum parce que soo nekkee di jàng tamit da ngay bëgg nekk foo xamante ne fu set la. sa xel mun a dal nga bañ faa jëlee feebar mais imagine nga nga ñëw di jàng si ba pare fu nga nekk setul nga dem jëlaale fa jàngoor nga yóbbu ko seen kër wàlli ko waa koñ waa kër ga waa ñooñu wàlli ko waa koñ ba ainsi de suite bi muy law hygiène daal si école yi bëggoon nañ bu baax baax ngeen sàmm ko ba nga xamante chaque jour dina di am équipe di contrôler di leen wàccee dañuy nettoyer di suivre di contrôler si biir le toilette yooyu la moo faxe parce école naar yi noonu la def man école Yabou yi bu ñu maa ngi woon Ayib Sultan école mën a seen école cette wicc ñuy jël seen doom di école yooyu école ça veut dire que propreté ba am na fa mais bi tamit moo ngi fa ngeen taxaw ko bu baax loolu tamit léegi beneen bi monsieur le ministre par rapport ak kii bi école bi tam bëggoon érigé si euh, de jeu comme ça ay terrain militaire, terrain foot wala mini basket pour comme ça jàppale éducation ak sport ñu parce que dafay développer mentalité xale bi dafay développer euh, psychomoteur xale bi loolu soo leen ko si boole xale yi dinañ gën a sawar parents tamit dinañ gën a sawar di si participer xam nga day former xale yi tamit futur ay futur talent la nekk yooyu yëpp ñu mën leen see former beneen bi mooy euh,

di contrôler si biir internet soo fa yóbbee sa doom wala am ay benn ay agent yoo xamante ne dañuy ñëw tout le temps waxuñu kii mais dañuy ñëw tout le temps di vérifier di contrôler di toog a xale di waxtaan ak ñoom a professeurs yeeg yooyu di waxtaan ak ñoom si biir internet comme ça nit ñi au moins dinañ sawar di yóbbu seen doom yi si internet mais sinon parents yi soo waxee internet beneen beneen mentalité lañ siy am te fekk du internet yëpp ñoo fan ñoo mel noonu am na internet yoo xamante ne vraiment yu baax la te ñoo ngi fii biir Sénégal bi si biir Ndakaaru Njaay bi